voilà mbokki Diourbel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi fii tey ci euh, Bremen Bremen nekk ci réewum Allemagne Euh, ñu fi dalal sëriñ Mamor Mbacke Muxtada li ko waral nag mooy marche bi nga xamante ne bii ñoo ngi ko tuddee marche jàmm la moom la ñuy fas yéene door euh, xam ngeen ne at mu jot fii ci Allemagne ki nga xam ne mooy sëriñ Mamor Muxtada dafay ñëw fekk si taalibe murit yi fi nekk daayira fédération daayira Allemagne ñu def fi lu am solo muy def fi ak ngan journée culturelle ak exposition euh, tey nag incha allah moom mooy li nga xamante ne bii moom mooy marche bi ci kanam tuuti dinañ ko démarrer journée culturelle bi ak exposition bi suba ak jamm lay don fele ci keur Serigne Touba ci ca Folosada nek à 40 km de Bremen. ni ngi jakarlo ak Serigne Ousmane Ndiaye Serigne Ousmane Ndiaye nak man ni xam lu ne waral yi. auzu billahi mina shaitan rajim bismillah barki Serigne Touba waaw lolu sang bi danañ ci meuna tontu lu gatt rek ndax suñu xam-xam sax jëm ci lolu waye gannaaw biñu len leen siyaaree suñu sunu mbokki taalibe yi manam mu melne bis bi mom liko waral moy ak gan ko tedd muy cheikh mohamadul serigne mamor mbacke mom cheikh mohamadul murtada khadimul khadim ci bis yi nga xamanteni bi tourner bi nga xamne mom lay baxo di amal fi ci bitim rew ñu nek fi ci almagne nak manam ñu war ko fi tertu fi ci aéroport bremen manam lola nak defena ne lu siwlu ci murid lo xamanteni bi danaka euh luñ ci wax yéen ñu ko xam muy bis yu mag yoy nga xamanteni mom la way juram ba doon doxal ba wàcc euh, wàcc euh, sunu borom wàccee ko moom it mu jël mission bi di ko doxal yàlla def tey jii nag mu muy sunu bis bi nga xam ne moom la ñu jàppal dina ko gane si. Euh, yàlla sunu borom baaxee neen ñu war cee am ab tournée boo xamante ni bii ngir maanaam jëmmal si maam Ahmadul Mbakki yu maanaam wane am njàngaleem ma wane lan moom moo di ak dundam ak wane lan mooy ak muridisme murid lan lay tekki ci yoonu lislaam ndax Euh, ku ne xam na ne li xew ci àdduna bi yaatu na lool bari lool waaye li nga xamante moom lañ ci bëgg a wane rek mooy lislaam yi Sëriñ Tuubaa nga xam ne lislaam ji nga xam ne mooy lislaam ji wér muy lislaam joo xam ne yi ànd ak jàmm ak salaam yéene ñëpp jàmm mbindeef yëpp maanaam lool rek mooy li nu dajale fii tey jii ñu fiy teeru suñu gan gu tedd googu fas yéene koo dalal ci jàmm ak salaam ci barke Sëriñ Tuubaa Xaadimul Mustafaa ñoo ngi tuub bu baax baax ci wax bis bi waaw te tey jii mooy doon bis bi nga xamante ni moom la ñuy def mars bi maanaam nga xam ne bu buñ fi jógee ca la ñuy def def def marche boobu waaye bu subaa nag mooy doon gan gi nga xam ne naka jekk moom lañ ko daa amal ñu di ko woole maanaam bisu culturel de Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba Allemagne love. لمن بالله قد نجا mbokki jullit yi gis ngeen tertu bu am solo boobu fédération daayira almaañ yi tertu kii di sëriñ Maam Mor Mbàkke moom sëriñ Muxtada Mbàkke muy tertu boo xamante ne bii fédération daayira almaañ yi daayira bu ci nekk jóge nga fu nekk ci almaañ ñëw ci aéroport bu Bremen tertu si ki nga xam ne mooy sëriñ Mamor mbàkke moom sëriñ Cheikh Mourtada Mbacke mu doonoon nag ay jamono yu am solo ay retrouvailles diggante taalibe ak sëriñ diggante xarit ak sëriñ diggante mbokk diggante am di jàmm ba ñu ko defee nag lañu bàyyi ki nga xamante ne bi moom mooy sëriñ Mamor Mbacke mu dugg ci hôtel bi nga xamantene bi ci la wara a ay minutes soga mané genn nak dem ci marché ba digënté bi gis ngeen taalibe contane lol di bàggante ci digënté aéroport bu Bremen ak hôtel bi nga xamantene bi mom lañ dal Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Moxtada Mbacké moy nit ku ñuul moy nit ku xonx moy sénégalais africain wala allemand ñepp dañu rek. ci bis boobu nga xam ne sëriñ bi wàcc na ci aéroport Bremen kontaan bég mel ne seen xarit seen nit seen lépp moo wàcc muy mbir yu am solo. sëriñ bi ak délégation bi mu àndal ak taalibe yi dugg nañ ci seeni oto wuti ghetto place bu Bremen. waaw لمن شاء بالتيسير وهو غدير فاقر به ربا أذى عني العدا وساق المنعم والجناب حقير غنيت به ربا ولم يقود به مرامي وإني شاكر وفخر نوري والقلب طيب léegi nag dañuy jox micro bi sëriñ bi mu waxtaan ak mbooloo mi ñu traduire ko en allemand bu ñu paree jox soxna mucc mii mu wax ci allemand ndax ñoom it fokk ñu séddu leen ci cër te moom ku am positif li ci dess nak tay ci guddi am nañu guddi mam Cheikh rafal ci keur seigne Touba ga ñuy ñaan mbolo mi yépp na fa ñëpp teew bu kenn manqué jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jëre maam seigne touba Fall bismillah Thank you. bisimilah rahmaani rahim mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi am mbégte bu baax di sant yàlla ci lii balaa boobu ñu ngi nuyu waa Allemagne yépp tàmbalee ko ci seen gouvernement bi tàmbalee ko ci gouvernement Bremen. sant bu baax service sécurité bi nga xam ne moo ñu encadré sa defe naa ne lii mi ngi fi soog a am ci Allemagne di loo xam ne bariwul ci Europe ñu ngi njëkk a amee ci Amérique boobaak léegi mat na ren la ci ñaar téelu ak juróom-ñett ci loo xam ne sëñ Mourtada moom la ko état New York joxoon kon lii ñu def tey nekkul lu niru fo dafa am lu mu symboliser der Cheikh Serigne Mamor hier Enkel von Cheikh Ahmed Bamba und Sohn von Serigne Murtada der sagte, dass er sich bedankt bei Gott zuerst und bedankt sich bei allen, die hier sind. Er bedankt sich bei der Regierung Deutschland, bei der Regierung von Bremen, er bedankt sich bei den Sicherheitskräften. Das ist das erste Mal, dass wir so einen Tag hier in Deutschland machen. Aber das ist nicht das erste Mal, dass wir das in der Welt machen, weil tatsächlich vor 28 Jahren hatten wir das Ding da so einen Tag angefangen in New York und das war dort staatlich erlaubt um das Gleiche, was wir dort aufgerufen haben in Amerika. Das ist das, was wir hier zum ersten Mal hier aufrufen in Deutschland. Nun, ay jullit lañ gëm yàlla alhamdulilah ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bootu ci yëpp ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba kon ay jullit lañu mbokki kon marche baa ngi noonu waxi sëriñ Mamor ji jeexul waaye mën ngeen ko fekk ci page Moubarak euh, FM Euh, page Facebook bu Moubarak FM li euh, wax rek ne lii mooy temps fort yi nga xamante ne bii moom lañ leen indiloon ci marche Serigne Mamoun Mbacke ibnu Serigne Mourtada Mbacke di leen jox dox daje incha allah dawoon ak jàmm euh, fii ci Bremen ci réewum Allemagne Babacar Sall doon jokkoo ak yéen salaamaaleykum wa